Thank you. daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw tawfeex rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun béykat yi nekk nekk si li gën a xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo xam ne taw bi ñëpp war nañ cee ñëwee te ngeen mënu ci fàggu waaye rek dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. waaw incha allah kon bala ngeen di teewlu rek.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 leer na nañ ci yow ne anam na abdillahi naka doomi abdillahi ji di yonent bi sallallahu alayhi wasallam xayru muqtada mooy ngën ci ñu roy de kulul wara bépp mbindeef man sëñ Tuubaa yax bitu nii dana ma ñee fii ci yonent bopp ma doon roy xadan ëllëg yawmal qiyaam wal yow ma ak tey tasa am nin mbir moom mooy borom kóllite goo xamee ne yi dana ma indil dana ma ñoddil raqadaa yaatug dundu de nee na ku gindee ku tegee ko ci yoonu siraatal mustaqim wóor na la péng ne yonent bii di doom ci abdullahi abdullahi mooy woy juróom bu góor sayidatuna aminatu bintu waxbin mooy woy juróom bu jigéen sëñ Tuubaa nee ku gindeeku rek xam ngeen ne kii gën ci ku roy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo mën a roy koo kee te royut yonent bi yonent bee ku gën sëñ Tuubaa wax na ci Matlabul Fawzayni ci njëlbeen gën a képp ku koy roy da nga mujj doon ku ñuy roy kon yonent ku koy roy rek danañ la roy ndax képp koy roy ko ci gën mooy yonent bi sallallahu alayhi de sëñ Tuubaa nee na képp kuy borom gindeeku wóor na la péng ne yow moo mee da ngaa gindeeku ne doomi Abdoulaye ji di yonent bi ku ñuy roy moo ca gën kon mu ngi noonu de kon nag ki gindeekuur waxuñ ko waaye ku jub moom la Sëñ Tuubaa wax Sëñ Tuubaa nee na nag man moom laa doon roy moo tax bépp mbindéef waxut sax maanaam ñëpp danañ ma ñee ci yonent bopp ma doon roy ëllëg yemal xiyaam adduna ak ëllëg yemal xiyaam yëpp danañ ma ci ñee adduna ñee nañ ko ci ndax maqaamam Xaadimu Rasuul ken masgul koo dégg loo rek luñ ko ñeetaanee la yowmal xiyaam itam danañ ko fa ñee te nee na fu mu toll day am sécurité goo xam ne waxtu wu ne da koy indil yaatug dund yaatug dund mooy koo xam ne day dund ci na tax mooy yolomuk dund mooy naataange mooy koo xam ne suñu borom musal na ko ci lépp luy bekkoor ak xiif ak ñàkk ci yaatug dund rek ci lay ci lay dund moo tax ma ne bépp mbindeef dana ma ñee ci yonent bi ëllëg yemal xiyaam ak tey ta fu ma toll damay ànd ak sécurité goo xam ne daf may bijjal ak yaatug dund de kon sëriñ bi ñëpp danañ ko ñee ëllëg yemal xiyaam de ak adduna ji ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muhammadun muhammad salaa yàlla na julli alayhi ci yonent bi man yàlla mi nga xamee ne xaddaa dafa jubal kulli sama lépp bi ci yonent bi xaade wa mat na lii jëmee ci man alkitaabu téeram bi li nga xam ne mooy huddaa mooy njub ga de dégg nga de nee Muhammad yàlla yàlla julli ci moom yàlla mi nga xamee ne moo jël sama lépp gindi ko mu topp yonent bi di ko roy ci waxtu ne bu noppi nag mu jël alquran teg ko sama loxo ak li nga xam ne moo di njubug yonent bi salaay salaam kon yàlla moo jël alquran jox ko sëñ Tuubaa jël njub ga jox ko ko moo tax ne xaada womat na lii jëmee ci man alkitaabu téere ba hudaa ak li nga xam ne hudaa li nga xam ne moo di njubam ga de alquran moom womatal njubub yonent bi salaay salaam waxtu wu ne damay jaar ci yoonu siraatal mustaqim ndax alquran njub rek lay jàngale hudan lil muttaqina la yàlla wax jub la ñeel ñi ragal yàlla kon ñi koy jàng dañ ciy génn ci ak réer jëm ci ak njub ndax xam-xam yëpp ñi ngi bay ko ci alquran kitaabu xayril wara aslul ulumi mahan Sëñ Tuubaa nee na alquran cosaani xam-xam yëpp ñi nga bàyyi ko ci moom mooy xam-xam boo xamee ne ay xam-xamang ci yoo xam ne kenn mëntu xam lépp moo tamit ne xaada woomat na alkitaabu téere bi di alquran lii jëmee ci man hudaal njubug yonent bi de kon alquran moo woomat njubug yonent bi ci man dégg nga de waaye yàlla moo gindi sama lépp ci yonent bi salaay salaam alquran moom it dal di jël njubug yonent bi dal di koy woomatal jox ma ko nawaytu yéene naa sukura baasitin cant yàlla muy aji tàllal ji xat xaya daa kook dana jéng mooy dana tënk bi ci moom xedaa samay noon de xablu ci lu jiitu su ko waran ay cant yoo xamee ne jayi daa yu dijji la de cant yu rafet la nee na yéene naa cant yàlla muy aji tàllal ji moom mi nga xam ne sama noon yëpp laataa may dem ci tukki moo leen jéng moo leen tënk musal ma ci ñoom nee danaa ko cant cant goo xam ne cantu gu rafet lay nok cant goo xam ne gu ñu rafetlu moom lay doon moo tamit nawetu yéene naa sukura basitin cant yàlla muy aji tàllal ji xat xaye daa yàlla mi nga xamee ne moo jéng da samay noon bi ci kattanam de xablu ci lu jiitu laataa ma ñëw ci tukki ba ci ma jéngal sama noon ba kenn mënuma lor danaa ko cant nag su ay cant yoo xam ne jay daa yu ñu rafetlu la de ahmaduna sunu ahmad mi taqdiimuhu jiital gi ko yàlla jiital jiital gi ko yàlla jiital xat wu ji daa waxal na amees na xabla wu joodi kulli nat bin njëkko amuk bépp sang majjudaa boobu teddalees na ko de nee na yàlla laataa muy amal benn sang laataa muy bindi kenn fekk na mu jiital yonent bi sallallahu alayhi wasallam de loolu kon jiitu na juddum bindéef yi yonent bi ko yàlla de jiital la sëñ Tuubaa wax ne xadam tabi taxdimin ala ali ya rasuluna wustal xola ya naasirul xaq bil xaq yow yonent bi jiitu nga waaye ci jiitalug yàlla yàlla moo ko jiital yàlla nim jiitoo la jiitale yonent bi kon yonent bi bokkut ci course bi ñu jëm ci yàlla kon mu ngi noonu de moo tax ma ne sunu axman mi jiital gi ko yàlla jiital mu jiitu ñëpp kooku laataa yàlla di sàkk bindeef yi dégg nga de boobu la ko yàlla jiital def ko nam ko def kon kooku bu ñëwee ceedu na bokkut ci course bi sëñ Tuubaa na alal la si laysa lahu mu jaari xayril baraya sil masaya jaari julul ci yonent bi nga xam ne kenn du rawanteeg moom jëm ci yàlla moo tax ne ahmad naa sunu ahmad mi taqdimuhu jiital gi ko yàlla jiital xar bu jidaa kooku fekkees na ko mooy amees na rek xabla wu jóodi njëkku amuk kulu nat bin sang boo xam ne ma juraat teddaleef na ko bépp yonent bépp sang bépp nit ku baax balaa yàlla dala amal booba fekk na suñu borom jiital yonent bi sallallahu alayhi wasallam de kon nag ku baaxu taxul ñuy wax nabi naa sunu yonent bi nasiruhu moromam ku niroog moom lam yaridi mosturat xatun mukk wa awdun mukk misluhu kemam lan yarida durot de nee na koo xam ne dañ koy niru ak yonent bi boo doon xool ca la weesu amul luy ñëw itam du am mukk mooy mostu juddu te du juddu barra setal na sol arsi yàlla muy borom aras al asimi gadi aji màgg setal na ahmada yonentu yàlla ahmad yonentu yàlla muhammad min kulli aybin ci bépp ayib wal xayaatatu dundam gi yëpp xamida yàlla sant na ko de nee yàlla mi moom xaras gu màgg moo setal yonent bi ci bépp ayib yonent bi amul dara loo xam ne dañ naan lii xeeti ayib la bu koy taq ak gàkk-gàkk ak wiis dundam lépp suñu borom da koo sant suñu borom musal ko ci bépp ayib de axtab na abdallahi man lam yulada maa lam yahusu walidun qad wulida sëriñ bi dellu tegaat ci ne axta joxees na ibn abdullahi doomi abdullahi ji di yonent bi man yàlla mi nga xam ne lam yulada juree sut ko joxees na ko maa loo xam ne lam yahusu laqut ko mukk walidun benn way jur woo xam ne qad wulida dana jur nee ne yonent bi di doomi abdullahi ji sun borom mi nga xamee ne lam yoo lab maanaam kenn jurut ko yàlla amut fenn fuñ naan fii la soqe kii may woy juróom bu jigéen loolu mustahil la ci moom wala kii may woy juróom bu góor kooku mustahil la ci moom nee na moo jox yonent bi loo xamee ne képp ku doon woy jur di jur doom rek mooy amoo ko mooy làqoo ko kon yonent bi moo féete kaw ñiy jur ak ñi ñu jur ñëpp ci saay rek baatin moo tax mu ne doomi Abdilaaji sunu borom mi nga xamee ne maanaam doonul koo xam ne dafa soqe ko ci dara te yàlla moom moo sàkk lépp nee na moo ko jox loo xamee ne benn way jur wuy jur làqul ko muy amut ko de ata abal qaasimi man lam yalida faqra tawaludin anaaral balada mu tegar ci ne anta jox na wala ata jox na abal qaasim yonent bii di bàyyi qaasim kan moo ko jox mu ne man yàlla mi nga xam ne lam yarada lam yalida mooy maanaam moom jurut kenn maanaam jox na ko faqra na faqra tawaludin maanaam muy ndamul mboolem ñu sosu anaarata leeral na albalada mboolem réew yëpp de nee na yonent bi di abil qasim yàlla mi nga xamee ne jurut kenn kenn jurut ko moo ko def muy ndamul mboolem ku judd ku judd rek kooku yonent sallallahu alayhi mom ngay ndamoo de réew yëpp moo leen leeral réew moo mën a tudd ak moo tudd yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko leeral de adduna lu muy leer leer leeral adduna lu leer leer yàlla li tax mu sàkk adduna mooy barke bi tax lu yàlla sàkk lu dul moom rek barke bi bi ci la ko sàkkee moo tax mi ne aataa dikkee na mooy jox na mooy dikkee na aataa dikkee na abal qaasimi bàyyi qaasim di bi man yàlla mi nga xamee ne lam yàlla daa lam yali daa mooy jurut kenn mooy dikkee na faxra tawaalu di ndamul mboolem ñi nga xamee ne mooy ñu judd mooy ñu sosu anaaram moom mooy ki nga xamee ne leeral na albalada réew yi de maanaam yàlla moo indi yonent bi ci aduna moom mi nga xamee ne ku sosu rek maanaam da ngay tiituroo yonent bi sa ndam la danga ko war yàlla moo ñu ko indil yàlla mi nga xamee ne moom maanaam jurut kenn te kenn jurut ko bim ñëwee itam ci la leeral mboolem aduna lépp mboolem réew yëpp moo daan leeral moom yonent sallallahu alayhi de ansala rabbuhu lasi qad jadada bihi hudahu sikruhu wal madada mu ne ansala wàccee na rabbuhu boromam alla ci boromam mi nga xam ne qad jadada yeesalee na bihi ci yonente ba hudahu njubam ga li mu wàccee ci moom mooy sikruhu alquraanam ja wal madada ak mboolem xéwal yi nga gis ci àdduna nee yàlla mi nga xam ne moo yeesalee njubam gi bi mo namm feeñal njubam gi da ko wàcc ci yonent bi dafa wàcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu doon exemple ci ñëpp mu royloo ñi ko moom yonent bi ñu royloo ko ñu fi jiitu woon ca yonentu ulaayka lasina hadallahu fa bi hudahumu iqtadi moo tax mu ne yàlla mi yeesalee njubam gi ci yonent bi moo wàcc ci yonent bi alquraanam ji moom yàlla wàcce mboolem xéewal yi yépp moo leen wàcce li sikkiree ñeel na téeram bi di alquraan alhakim ba de buñ xereñi ci solo lu fàddu noorul leer goo xamee ne ba daa feeñ na de xaari uxoo aji jàngam moom alquran xat ubida des na ko saxal saxalal dàkk tafsiruhoo mbégam ma de nee na alquran leer ci goo xamee ne leer na nañ ñi koy jàng ñëpp xam ne alquran leer ci nekk lenn luy xeeti lëndëm nekkul ci alquran ñi koy jàng ñëpp danañ xam ne lii am na cafka gu ci nekk am na leer gu ci nekk goo xam nekkul ci weneen téere kon ñeel na téere bi di alquran leer goo xam ne feeñ na waaye nag feeñ gi nag kenn du ko ñam kenn du ko mos du ca ken kenn lurut ku koy jàng ku koy jàng moom mbégteem alquran waxtu ne leer ga day ñëw ci yow ku la gis xam ne yow jàngkatu alquran nga jàngkatu alquran buy jàng alquran dëgg ku ko gis rek xar-xar moom mën na cee xamee sukkandiku ne kii ab jàngkatu alquran la kon mu ngi noonu ngir leer gi nekk ci moom alquran moo koy def lépp mi ngi bay ko ci jàng gi de moo tax mu ne li sigri na téere bi di alquran alhakim bada buñ xere ñee ci solo lu fàddu leer goo xam ne xat ba daa fiñ xaari oo aji jàngam xat ubida des na ko ko saxalal dàkk tafsiroo mbégam ya de leer yooyu day ànd ak mbég yoo xam ne ki jàngal Qur'an sunu borom du mukk di la ko saxalal xinal la si koomu ki nga xamee ne yëpp loo dana jàng kitaaba ahmada téereb yonent bi xinaa muhibin mooy koomuk aji sopp laa yu laaxi koog du daje mukk kama daa njàqare de nee na koomu ki nga xam ne mooy jàngal Qur'an mu ngi mel ne yow mi amoon sa alal ji nga gën a bëgg ni nga koy bëggee nee na ki jàng alquran dëgg-dëgg nag su fekkee mi ngi lay jëriñ da nga koy bëgg comme ni ngay bëggee sa alal ji nga denc wala sa yére ya nga denc loo xam ne yaa ko denc te fa nga ko bëggoo kenn gis ko te fa nga ko dafa sori nee na booy jàng alquran dëgg-dëgg noonu lay mel ci yow lu ko raw ba tax na doo dajeeg benn xeeti njàqare de moo tax mu ne koomu ki nga xam ne dana jàng téere bi téere bi yonent bi nee mooy koomu aji sopp joo xamee ne du dajeeg njàqare mukk heure bu dee koy gën di sopp da ngay xam ne koom mu yem ci alxuraan koom yëpp alxuraan ci féete kaw boo amee alxuraan am nga lépp bo ñàkkee alxuraan ñàkk nga lépp de yaquudu man bil mulki qad tafarada walhamdi li in am nan jurida mu ne yaquudu dana xomat man yàlla mi nga xamee ne xat tafarada wéet na cundung bil mulki ci biir nguuram ga de walhamdi ak melu yu rafetam ya te mooy cantam ya mooy melo yi nga xam ne mooy melu yu rafet yi nekk ci moom dana womatal li xaari in ñeel aji jàng ji am nan sécurité goo xamee ne juri daa dana rafli xoo di téye ngàndaay mu ne sunu borom mi nga xam ne dafa wéet ci biir nguuram ga te soxlul ku ko ja wéttali waaye mboolem melokaanam yi da ca wéet lam co doon kem la yell ci moom amul kenn ku ko cay fekk mu ne kii jàng alquran sunu borom dana ko defal sécurité goo xam ne du téye du téye leen lu koy wéttilee lu dul alquran mooy jaasitam mooy fettam mooy paakaam mooy lépp lu muy joñee moo tax ma ne yuquudu dana womat dana womatal man yàlla mi nga xamee ne xat tafara daa wéet na bil mulki ci biir nguuram ga walhamdi ak melu yu rafetam ya dana womatal li qaari in ñeel aji jàng alquran ji lam koy womatal mooy am nañ sécurité boo xamee ne juri daa dana raflexoo di téye ngàndaay maanaam du téye dara lu dul alquran mooy pakkam bi koy fëlal lépp lu muy ragal moo koy ñoddi li muy bëgg. baqaa uman desu ka nga xamee ne xamaa xaar na jihaati sama wàll abadan faw xañil asa walis lépp luy lor du fi jublu. nee na desam gi fi des nag. sax saxa moo dàq man lam yax bu daa ñi nangu ta jaamu yàlla ñi jëm ci kurut man de. nee na yàlla mi nga xamee ne mooy ki fiy des moo xaar sama wàll ba lépp luy lor bu naroon a dënmal jublu sama wàll rek sunu borom moomu ci musal. waaye képp ku nangu te jaamu yàlla sunu borom moom lay dàqal nga jëm ci kurun man doo nga jublu mukk ci saay rek baatin kon loolu la ko yàlla defal moom sëñ Tuubaa de nam tàmbaloon xasidi gi rek noonu la ko tojee ba muy tàmbal dane sabba ila xayri jihaati abada masa anil baaqi wa man lam yaxbuda baata man lam yaxbuda ba tey moom la tëjee xasidi tey mu indi laxat kaana fi xasasim xibratun li ulil albaabi ma kaana xadisan yuftara tënkee ko li nga mooy xasida gi ñuy bëgg firi si ba tey mi ngi ci jeexantalu sóoratu yusufa mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mindeef ci àdduna arrahimi buur bay aji ku ko soob ci àlaxira nee na maa ngi tudd di tàmbale turu sama borom yàlla mi nga xam ne mooy ki xéewalaa kon ñëpp ci àdduna tey aji yërëm ku ko soob ci àlaxira sala yàlla julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sangi muhammadin turam mooy muhammad wa ala ali ak ñoña wa sama bi ak saxaabaam ya wa salaamatu mu dolli kóolu tasliman dolli kóolu maa ngi dagaan ci yàlla mu sax dàkk di julli ci yonent xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad yàlla na yàlla julli ci waa kër yonent bi julli ci ay saxaabaam te yàlla maa ngi dagaan ci moom waxtuum jullee ci yonent bi yàlla na dolli sëlmal ca moom di ko jëlee ci ñun mu mel ni ñoo koy def ndax lottu nañ ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax saa boo xamee ne tàmbali na bismillahir rahmanir rahim rek dana julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye julli gi koy dagaan ci yàlla mu di ko def yonent bi sallallahu alayhi wa muy julli goo xam ne ba ilaa yamil baxsi waxtu wu ne rek yàlla day julli ci yonent bi mel ni sëriñ bee koy def ndax sëriñ bi day wane ne moom lot na ci julli ci yonent bi waaye bu ko sàkkoo ci yàlla yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu wu ne loolu day mel ni kon sëriñ bi moo ko def waaye nag da koo sàkku ci yàlla ndax moom iraada la xam muy bëgg-bëgg comme bu bëggee dara nag te bëggal ko yonent bi te na ci defal ko yonent bi mu ko ci yàlla mi nga xamee ne moom lépp lu mu def rek luy saf yonent bi sallallahu alayhi la mu sàkku ci yàlla mu di ko defal de kon nag ñun ñoo ngi sàkku ci sunu borom mu sax dàkk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee ko ci ñun mu mel ni ñoo ko def ci saay rek baatin de kon mu jël ay alquran jooju nga xam ne mooy laqad kaana fi qasasihim xibratun li ulil albaab maa kaana xadisan yuftara walakin tasdiqa la si bayna yadi wa tafsila kulli sayin wa huddan wa rahmatan li qawmin yuminoon loolu ba yàlla di nettalil yonent bi sallallahu alayhi wasallam xisatu yusuf bam daanoo ba jeex yàlla da ko bëgg wax na ko lu ci waaye waxatu lu dul lii rek fen la lii daal mooy lu wóor kon nag nettali gi ma la am na luñ ci war a jàngee muy lu mel ne xebra muy xessatun waaye wa taskiratun mooy waaroo ci waaye di ci fàttalikoo ndax xisa bi yàlla jàngal yonent bi ci xisatu yusufa yépp génnut waaroo ci ak fàttalikoo ci waxtu ne moo tax mu ne ko lii nag ma la nettali laxat kaana fii xisasiim nettali yi ma la nettalil xisatu yusufa nettali la ko xisatu ñi lu fi jiitoon ci ay yonentu nee na ko loolu xebratun la de mooy xessatun ak taskira waaye nag ñan lay jëriñ toujours mu ne li uli lal baa bi ñi xam ne seen xel sell na ndax boo ko waaree rek boo leen waaree ñi mën a jàpp la nga leen waar waaye nag amaa ku xolam ku xelam sellut boo ko jàppee bëgg koo waar maanaam la koy waar du ko dugg de kon borom xel mu sel rek nga mën a waar mu jëriñ ko mu ne ko nag maakaana xadisan yuftara lii ñu la nettali nag nekkul loo xam ne dañ koo duut mooy lu ñu fent déedéet fentuñ ko de waaye walakin tasdiqa lësi bayna yadihi dañ koo def rek lii yëpp ñu nettali nekkul loo xam ne waxtaan wi la nettali rek ngir doon lu ñu créer waaye day dëggal li li fi jiitoon rek waaye day leeral lépp lëf waaye njub la nekk yërmande ci nit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla de kon alquran loolu rek ku job a dafa ñëw di dëggal maanaam téere yi fi jiitoon ak histoire ñu fi jiitoon loolu lay nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam de dafa ñëw nekk jëmi njub ngir ñu mën cee jubee dafa ñëw nekk jëmi yërmande ci nit ñi nga xam ne dañoo gëm yërmande lay nekk ci ñoom ak njub buñ leen ko leerlee rek mën nañ cee gindee ko buñ leen ko leerlee rek ñi nga xam ne ay jullit lañ dana doon yërmande ci ñoom moo taxoon sëriñ bi tënkee xasida gi lakat laxat kaane fii xasitim hebratun li ulil lal baab maa kaane xadisan yuftara mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay kon bépp mi néef caadu na arrahim buur bay ku soob ci àlaxira sala yàlla na sax dàkk di julli allah yàlla ala sayyidina ci kaw sunu sange muhammadin turam mooy muhammad wa ala ñoñ ña wa sahbi ak sahabaam ya wa sallama tamu dooli ko mu ne maa ngi tàmbale ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa kon bépp mindeef ci àdduna tey aji yaram ku ko soob ci àlaxira yàlla yàlla sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad yàlla sax ba tey di julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp te mu dolli ko wóolu mu ne laxat kaana nekk na yow yonent bi ca dëgg-dëgg nag fii sim ci seen xisi yi ñu la nettali xebratun ak kalam mooy waaroo ci ba noppi di fàttaliku li uli ulil albaabi ñeel borom xel yu sell yi de borom xel yu sell rek maanaam ñoo ci man di waaroo ta di ci fàttaliku seen diggante ak seen borom saa buñ ko jàngee seen xel bu fàtte woon yàlla danañ ci fàttalikoo yàlla. mu ne ko maakaana nekkul nag xadisan di nettali boo xam ne yuftura bu ñu kariyee la bu ñu fent bu ñu duut la maanaam nekkul ne nettali gi ñu nettali seen xis yi dañ koo fent kariyee ko ni ko ñenn ñi di defee di nettali loo xamee ne ci waaju baax dara amul ci yaa ko fent rek. alxuraan nag lépp lu fi yàlla wax rek nekk lu ñu fent wax juñ fent waaye wax la joo xam ne nii la xewee woon yàlla nettalee ko yonent bi ni doonut lu mu yokk dara wala loo xamee ne da cee wàññi dara la amoon rek moom la yàlla nettali mu tàmbali xasida gi jël laam ak laqat kaana ne li samadil fardi la si lam yalidi walay sa mawloodan amiilu xaladi mu ne ummiilu danaa jengal xaladi sama xol xalat boobu mi ngi tekki alqalbu xalaat dana tekki maanaam béel ko sax ci fenn waaye yaaram yi duñ ko wax lu dul koo xamee ne barab ba nga nekk sa xol dafa dal foofu lañ juble ci baatab xalaat maanaam nit ki fi mu béel xolam dafa dal waaye am miilu danaa jengal xalaat yi sama xol li sama di jëmee ko ci yàlla mi ñëpp jëmale aajatu jublu aj jëm ci kenn alfardi moom muy kenn ku wéet alla ci mooy ki nga xamee ne lam yeli di jurut kenn walay sa mawloo danta doonul ku ñu jur de nee na bu may jël sama xol dama koy jox yàlla mi nga xam ne benn sama du ñëpp dañu aajoo jëm ci moom te moom aajowul jëm ci kenn lépp lu dul moom rek da nga aajoo jëm ci moom kooku mooy kenn koo xamee ne moom soxalul ku ko wéttal ndax manqué wut mooy ki nga xam ne soqeekuwut ci kenn kenn soqeekuwut ci moom ñëpp moo leen sàkk kon kii lay jox sama xol de xuttu wa mat naa lisil jalaale jëmee ci borom màgg ki wal ikraami ak terele gi tawhiduhu ak wéetalam ak kennalam falkaddu coono yi nekkoon ci man sun siram borom dog la de gannaaw ba ma defee loolu de nee ne wamat naa jëmee ci yàlla muy sil jalaal ak ikram di ñaari tur yoo xam ne yàlla wax ne tur yu barkel la tabaraka ismi rabbika sil jalaali wal ikram tur yu bari yiw la mu ne wamat naa jëmee ci yàlla muy sul jalaal di borom mag di borom tiraangi di terale nee na wéetal gi ma ko war a wéetal waxtu ne dama koy wommat di ko jëmee ci moom moo tax coono yi doxoon sama digganteeg noon yi ak coono yi adduna jafe yëpp sun borom musal na ma ci dog na yépp daxa woo na samay xalima wa daxa woo na midaadi samay daxa lil xatti jëm ci mbind sukurulahi ca mooy cant yàlla bi wi daal di ànd cofel cofeel gu dëgër laa ko laltaayee dama jékk ba yàgg sama xalima yi ma war a bindee ñoo ma woo ji moom it dellu ma wo nema ma tee ngay ñëw sant yàlla waxtu wu ne di bind di ko sant ci xéew li mu la defal waaye nag na nga jiital cofeel kon lépp looy def rek na doon cofel nit bu la defaloon dara sax ah, sant gi koy sant na fekk nga jiital bëgg gi waaye bu ko sant nit mën naa sant nit te fekk bëggul ko da sant ci làmmiñam rek waaye kon bala ngaa sant nit day fekk nga bëgg nit ka su ko defee loolu mooy lu dëggu kataba bind na rabbi sama borom allahu yàlla ne ani man sëñ Tuubaa moominun ku gëm yàlla laa wa muslimun ku nangoo wuyoo ay santaanem laa wa muxsinun ku nangoo rafetal laa te yàlla tax wa mu'minun te aji sax dàkk laa ca de dégg nga nee na yàlla moo bind ci umul kitaab te dootu ko far ne man ko am iman laa ko am islam la ko am ihsan la te benn bu ci nekk dama ciy sax du mos a génn ci sama xol loolu yàlla moo ko bind seeral ma ko te dootu ko far akaramu ni teral na ma al ahadu yàlla muy kenn gi bi tawxiidi ci wéetal gi ma koy wéetal inda si sawi nufoori fa borom foñña wal juhóodi ak way weddi ña yàlla nee na yàlla mi nga xam ne kenn képp la moo ma teral ci wéetal ga ma ko doon wéetal ba ma nekkee ca sama diggam ak nasaraan yi ñoom ñëpp dañoo fañ mooy ñoo xam ne kenn mënu leen di waar loo leen waar waar waar dañuy gën a foñ anas judu lima taamuruna la alquran wax wasaaduhum nufooran am na ñoo xam ne kenn mënu leen di waar ndax weddi nañ ba noppi rek dégg nga de kooku mooy juhóot loo xam ne da koo xam buñ ne inkaar nag mooy weddi loo xamut kon moom mooy weddi ne da nga koo xam ñi weddi lislaam ñëpp dañoo xam lan mooy lislaam da leen neex rek topp seen bakkan ak adduna rek jàpp ne duñ fi bàyyi ko duñ a ëllëg xam yàlla fay leen moo tax ñu weddi yàlla kon yàlla muy kenn ki moo ma teral ci weetal gi ma koy wéetal indi sa wi nufoor fa borom fañ na wal juhóodi ak weddi ña yàlla ñoom ñëpp dañoo weddi yàlla te foñ na fa na hidaaya samay noon allahu yàlla li si waaye mu jëm ci kurun man fatlan ci ngëneelam de wala ilaha waat naa ne amul benn buur ba yow jaamu jaamu gu du jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu du jur ilallahu de nee na suñu borom ci mbaaxam rek ci la xool ci ngëneelam dàqal ma samay noon ñi jëm ci kurun man ba mucc ci ñoom te waat naa ne yàlla mi ma defal lool moom rek mat a jaamu ndax noonu yi dañ maa bëggoon a lor yàlla dàqal ma ko ci jaamu gi ma koy jaamu kon bu fekkoon ne damay jaamu sama bakkan wala sama bànneex wala noonu yi lor la may yàlla def waaye duma ma jëriñ waaye boo gisee mu jëriñ ma dàqal ma samay noon yëpp loolu la yàlla wax ci suratul hajji yadduhoo laman darhoo aqrabu min nafi maanaam di jaamu koo xam ne lor la lay gën a def ci jëriñ yi ci jëriñ la yàlla la biisal mawla wala biisal asiru yàlla neen su fekkee sa xarit la ak bon su fekkee sa andoor la ak bon bëy àndandoor kon yàlla nee na kooku du àndoor de yàlla na ci yàlla musal di jaay sëñ Tuubaa faasat tuufu na jaay sëñ Tuubaa faasat tuufu samay xalima wal mi daa ak samak daxa wal jasad ak yaram wi bi man nug yàlla mi nga xamee ne kafaani moo ma fegal ku la xaasidin bépp aji kañaan joo xamee ne xasat koog dana kañaane nee na sama xalima yi ma doon jihaatee te mooy xasi yi samay xalima samak daxa ak samak yaram maanaam réussir nañ ci jihaad ji ñekkoon maanaam am na luñ bëgg am na luñ bëggoon ci tukki bi yëpp am nañ ko waaye lépp ci coob rek yàlla mi nga xam ne moo ñu musal ci képp ku ñuy kañaanee waxtu wa ngay nos kañaan nga rek yàlla musal na ci yow xayu képp ku ñuy kañaanee rek yàlla musal nañu dàqal ñi la yow ak sa xayu yëpp yàlla musal nañ ci yow yàlla moom nag moo def sama xalima yi sama daay ak sama yaram yëpp réussir ci lañ doon liggéey lépp de yaquudu ni dana ma womat lil jannati ba kerek aljana al islaamu islam de wantaxaata dana jublu al malaamu lépp lu ñu yeddee doomu aadama li siwaa nax wi jëm ci fudu sama wàll de ah comme l'islam la doon yëkkati te boobu l'islam man nga ne doxadal nañ ko ba muy jooy moo wax yàlla na ko fa basir sawil islaami bi ajilan wakun ca asiru islam mii di jooy amut ku ko dimbale na ko dimbale ci man mu bég ci man bi ñëwee ci njaarim nag ba ñib si ne barakatul islaami nax wi aqbalat wa man xalaw ni fil baraya xajilat de barkeb lislaam nag léegi jublu na sama wàll képp ku may bañ rek suñu borom moo lay gàccal kon lislaam ba sëñ Tuubaa di dem ci géej gi daroon jooy bu aw fas nga ne kenn joxutul ko lekk yooy na gisatul ku ko dimbale waaye bi ko sëñ Tuubaa dimbalee ba tey lislaam nee na ko may sa loxo yóbbu la ba aljana ba ci kanam yàlla moo tax mu ne jëmmi lislaam moo may womat ba keroog may tàbbi aljana moo tax lépp lu ñuy yeddee doomu aadama dana jublu fu sama wàll ndax ni mu fekkoon lislaam dafa gisoon ne ñi fi nekkoon sax doon ko mbuboo heure bu ne ñi ngi ci fo kon fo mom moom lañ fi nekkaloon ñu fi ëppoon nekk ci lislaam daan daan ko dundee te duñ ko dundal loolu taxoon lislaam yooyu ba gisul kenn ku ko dimbale loolu kon yëkkati goog moo waral sëriñ bi dem ci tukki ba mu demee ko ci tukki ba nee na dafa mel ni koo xam ne dañ koo may parfum maanaam gët mu laal ko ci jëmmam ji mu jub am mbooloo kenn ku nekk jóg taxaw na ko sa gët gi foo ko jëlee may ñu mu xam ne amul. nee na nag moo tax mu dem ci tukki de gët googu ñëpp di ko laaj te fekk du gëtam luñ ko may rek la te mënul koo ñàkk loolu moo ko yóbbu ci tukki ba. xalabtu wëlbati naa xal bi sama xol walisaani ak sama làmmañ wal jasad ak yaram wi. li maaliki jëmee ko ci yàlla muy aji moom waliya ñeel na ma ci njàmbaar ci ñeme mux ji lu asat lu gàccal gaynde de sama xol ak sama làmmiñu bopp ak sama yaram yëpp jox naa ko yàlla mooy léppam rek jox na ko yàlla mi ko moom boo xamee ne yàlla moom sa lépp danga koy delloo sa lépp mu téel sa lépp moo tax yàlla may ko njàmbaar goo xamee ne gàccal na gaynde nee na ba nekk ci géej gi tudd yàlla la doon def mel ni nag dafa yore ab jaasi ju muy bocc noon yi léeg-léeg mu ne xalaatam ci boppam gim nekkoon ci biit noon ya mu mujj mel ni moom kenn la waaye dafa mel ni armée bu songu noon yi boo demee ci nuuru daare da nga ci fekk xataa xadawtu fil heda ka askari nee na dama mujj ci biit noon yi mel ni ab armée donte man kenn laa boo demee ci mafaatul jinaan diwaanu ah babtu boobu da nga dégg mu ne wasikul rabbi sil jalaal alal heda ka haydari tudd gi ma doon tudd yàlla dama mel ni gaynde goog ñuy wax haydar ci kaw noon yi loolu ko moom kenn la waaye fit bu ko yàlla may la nga xam ne kenn la ku ci mbooloo. saana ñongal na xayaati sama dundu. xan saqa in walis texee di wa marat ak tawat. baaxin yàlla mi aji des ji nga xam ne yuquudu dana womat li jamee ci man riddaahu ngërëmam. fil xarat ci samay xememteef de. nee na lu ñuy wax texee di wala tawat moo xam tawtu xol wala tawtu jëmm. walla lu ñuy wax texee di ci jëf-jëfi texee di. yàlla musal na ko ci sama dund sama dund du jëf-jëf yi texee di sama dund du jublu te di texee di du ko jublu tawat du ko jublu moom it du jublu tawat mooy suñu borom daal musal na ko ci texee di ak gépp ak tawat ndax loolu yëpp cër la boo xam ne melokaana la wuy yóbbu nit ki safara diw mi ngi jëf-jëfi ku texee di melokaana la wuy tegtale ne kii nitu safara la diw xolam dafa tawat melokaana la wuy tegtale kii nitu safara yàlla na ci yàlla musal waaye diw dafay jëf-jëfi ku texe wala xol ba baax day tekkale ne kii nitu aljana la ndax aljana ci boppam rek bu ñu fa duggee xol bu bon amut fa kuy jëf-jëfi texe di amut ca déedéet kuñ buñ fa duggee rek jeex de moo tax mu ne baax yàlla muy aji des ci de mooy dana ñoŋal sama dund ci lépp luy texe di ak tawat yaquudu dana womat li jëmee ci man ridaahu fil xara samay xemem tiif de mboolem lu may xemem rek bu ma ko yàlla di jox da koy gërëm xoolal ñun doomu aadama bis bu ne lu ñuy xemam ci yàlla te yàlla di ñu ko may rek waaye fekk yàlla gërëmut ko waaye sëñ bi nee lu ma yàlla di jox rek fekk na mu gërëm ko saddaqatu samadi saanat xumuri an kulli mufsidin wa an muhammadi sëriñ bi dellu tegaat ci ne saddaqatu samadi may yàlla muy ki ñëpp jëmale ay xaaju te jublu aj jëm ci kenn saddaqatu samadi mooy saraxeeg yàlla moom muy aji moom mi nga xam ne mooy kilifa gu ñëpp jëmale ajatu jublu ajjëm ci kenn ku koy sadaxa mooy sarax da koy def nit yàlla yi yàlla day jël ay mayam mooy loo xam ne bu doon ci nit dafa jël ab som ci alal wala teraanga jox ko ay jege ñaaleem loo xam ne da leen ko may rek ngir tera terale leen ko moo tax mu ne sadaqatu samadi may yàlla mi ku ñëpp jëmale aja tu jublu aj jëm ci kenn saanat moo ñongol xomri sama dund de an kulli mufsidin walis bépp aji yàq waxan mu amri wala koo xam ne ku ñu digal la de maanaam daal may suñ borom yi may defal moo tax sama dund ñoŋ mooy duma génn di wuti dara te képp ku yàq itam suñ borom musal na ma ci wala koo xamee ne ku ñu digal la ngir nga ñëw di yàq kooku suñ borom musal na ma ci yow loolu yëpp mi ngi ci jublu yi mu amar mooy mafoolum amara mooy koo xam ne danga na ko diw mu wuy la nga ne ko demal ci kër ak nangam nga yàq nangam demal nga seetal ma nangam rambaaj nangam kooku mooy mu amar lañ koy wax. koo xamee ne maanaam daal jub rek taxut koo taxut koo jóg dem ci kër ak jàmbur waaye daal dañ koo digal na ko demal moo doon encensé rek ak yu nu mel yëpp mën na koo doon. moo tax mu ne sadaqatu sama di may yàlla mi ñëpp jëmale aji te jublu aj jëm ci kenn. saanan ñongal na sama dund an kulli mufsidin walis bépp aji yàq wa an mu amri wala ku ñuy digal de may yàlla yi ñoo ñongal sama dund ba képp ku yàq wala ñi sant ko mu yàq suñu borom musal dama ceew de hadiyatul baqi yi hadiya yàlla muy aji gindee ji hadat gindi na ku liiti sama lépp ilal jinaan bekk rek may tàbbi aljana wa annaara ta leeral na niyeeti sama yéene de ba tey hadiya day bay ko ci yàlla mu di ma ko jox ci waxtu wu ne moo tax sama lépp gindee ku orienté ko tege ko ci yoonu siraatal mustaqim bekk rek may tàbbi aljana de sama yéene itam ba tey moo tax mu leer moo moo tax suñu borom leeral sama yéene mooy yéene ju sell yéene joo xam ne yàlla nangu na ko madda taala na lee ñal ma allahu yàlla bi jaay ahmada ci daraja yonent bi masaratan mbégte moo xamee ne laysa tasoobu du rax mukk kamada ay njàqare de yàlla jox na ma ci daraja yonent mbégte moo xamee ne njàqare du ca topp ndax mbégteeg njàqare dañuy def muqaabala léeg-léeg léeg-léeg nit dund ci mbégte ba yàgg mu nekk ci naqar lool yëpp day am nee na suñu borom musal na ma ca de raditu gërëm naa an maliki walis yàlla muy aji moom sama wa waan rasulillahi ak walis yonentu bi yàlla bi de saa bon din mbir moom mooy borom ak sëri minal malaahi lépp luy caaxaan de nee na bég naa ci yàlla gërëm naa yàlla gërëm yonent bi waaye sëri naa lépp luy caaxaan de kon nag ku gërëm yàlla gërëm yonent bi doo nekk ci loo xamee ne dalay mere de te muy caaxaan de bara ani satal na ma alqul fii daarayni adduna ak alaxira min jaalibi naarin ci lépp luy biji safara adduna ak alaxira wala arayni wala lépp luy bijji gàcce ak nu ko laaxare